لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم الناصر الحق بالحق سيدنا محمد خير المرسلين وعلى آله وأصحابه حماة شريعة محمدية في كل مكان وحين رضي الله عنهم وعن سيدنا وقدوتنا صاحب المقام المكين ومرشد الناس المحين وبعد فهذه وصية نافعة وإرشادات الربانية جامعة حضرة شيخنا وشيخكم ومربنا ومربكم الشيخ سيدي أحمد التجان رضي الله عنه وإلى كافة إقوان حيث ما كانوا والله السلام الله عليكم ولطفه ورفقه ورحمته وبركته يليكم الإعلام بأن الذي أوصي بنفسي وأوصيكم به وأؤكده عليكم أن تعضوا عليه بنواجسكم هو هذا الدين هو هذا الدين محمدي هو الإسلام والإيمان والإحسان وهذه طريقة الأحمدية التجانية لماذا؟ وأن الشيخ سيدنا أحمد التجان رضي الله عنه وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفه ومدده سراسري إلى جا إلى جامع الموجودات في عال في عوالم عينية والغيبية لولو العينية والغيبية من أزل الأبد من أبد الأزل الله أكبر آه. المتصف بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفات موروثه منه صلى الله عليه وسلم له تفضيلا من حضرته رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حضرة المواهب المنان لماذا؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء jox شيخ وان الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله وهو مجموع الاولياء وبهروم عندك سين جيج لب نك آه. وين لا يشرب وليا ولا يسقى الا من بحره شيخ بالنص صريح بالنص صريح او بالنص صحيح املاه منه سيد الهجود صلى الله عليه وسلم آه وذلك الحقائق الثلاثه المشاهدة ومراقبة المعرفة آآ آه، آآ آه، آه، التي هي باب المعرفة هي الولاية الكبرى وهي لا تسقط واجبا دينيا وطريقا ولا تحليل حراما ولا تحريم حلالا وينك وثمرتها لا تسار إلى باب اللقاء تبارك وتعالى لما صح وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن صحصح عن النار ودخول الجنة كل جي بو فرير من الوار فاي تاي الحمد لله رب العالمين نيغي سانت مبولوم ييب ay boroomi xam-xam ñoo fi teew suñu usaas yoo xam ne ñoo ñuy jàngal ñoo fi teew waluyu yàlla ba الله اكبر ba البريه بي bi oh. ba ci mbaar mi ba ci biir ruq bi a cheikh ahmed a cheikh mouhamadul amin diouf yal na yàlla yokk wéram xafisahullah xafisahullah parce que dundam dundam njëriñ la wallahi ndeysaan yal na fi yàlla yal na ko yàlla yàggal te wéral ko yaaram na ñëpp ànd wax jërëjëfee maam Modou Diouf jërëjëf maam Modou Diouf yan na fi yan na ko yàlla yàggal te may ko wér parce que wéram ak yàggam njëriñ la ci ñun wallahi lii may wax tëbbam la lii may wax tëbbam la tey dañu bëgg a am luñ mos tuute ci fafiru ilallah jaaree ko ci ñetti escalier yi al islaamu wal iman wal ihsaan xam naa xajul fi nag رينا وين لو جس مو جنغتو لك ينجل مو كبو دولي فنان نون فيدي فنان نون فيدي في مكان بي فنان نون في وانا شيخ بدي ودي تبو قدي والله العظيم سيت تت تت مبغيل رك مو ام صلو والله ندسال مبغيل رك مو ام صلو الاسلام والايمان والاحسان اه ما هو الايمان al islam kooku daf kooku way jur la al islam yàlla dénk ko ñetti doom a tawba istiqaama a tawbatu al istiqaama a tawbatu al taqwa la ko yàlla dénk yàlla da koy jox doom ju ñu wax tawba jokkoo doom ji ñu wax istiqaama jokkoo doom bi ñuy wax ak taqwa wallahi la azim lii du wér mukk lu mooy ku am ku mel ni Cheikh Mouhamadou Diouf ci nit maanaam doo ko wax ci làmmañ dong maanaam waa daa am sawqu bi da ngay am cheyqu murabbi bi nga xam da ngay am cheyqul kaamil koo xam ne tey boo ñëwee ci ëttam mooy yaa ngi rañaan yaa ngi rañaan رنيا نكون دارا نكون دارا لموي رك بايكو سكر من دار الى دار شيخ لو كسلا موي دغ وا ليغي نا بو نيو كير سيرين لوي داف اغي جاد مي بيت المقدس مو جار لا بيت المقدس موتخ غورغي يان نكو يالا فاي يان نيو يالا تاسي باركم سي ويم بو موي سانك آه. شيخو تجاني بي شريف لا تالانو اه بو نيوي سي كير شيخ مربي بي lu ñu tuddee at tawbatun ndax wa kullu maqaamin xijaab at tawbatun maqaama la al istiqaama maqaama la at taqwa maqaama la léegi boo ñëwee ci kër sëriñ bi fut sa dàll la kër Cheikh Mouhamadul Amin Diouf li ñuy wax at tawba mu dindil ko ci yow loolu mooy mu waafaqanteeg tooñ yàlla léeg-léeg léeg-léeg ñun la dellul tuub mu dind ko ci yow ba mu set wecc soble makamam ci maqamam istiqama nak lol mo mu wafaqantek jubati mu dindi lol ci yow bam set wacc mu soble ci maqamam ak taqwa maanaam saggan dën ci yow moy mu wafaqantek mu ghafil saggan dën ci yow bu saggan ci yow na ngay baye xel yalla yalla kenn duko ragal boko xame wallahi yow nga yalla nga xam ko gi nga di ragal pourquoi kon dañ koy baye xel. duñ ko bàyyi xel sax loolu lañ ko bàyyi ñeneen ñi ginnaaw bi mu jàllee al islam mu nekk umm boo xam ne mooy jur yàlla may na ko ñetti doom yi ñoo ci umm bu nga xam ne moom mooy jur al moo mooy jur ñetti doom moom it yàlla may na ko sidq doom bi ñuy wax sidq turam doom bi ñuy wax ixlaas ak doom bi nga xam ne ñu ngi koy tuddee ak tumaani na asidqu foofu moom day raxas si yow li ñu tuddee kasib ah. fen moom dañ koy bax dañ koy raxas yow ba mu seet wecc sa xol bi mu bàyyee ko yow diri wàlla yóbbu la ci al ixlaas lépp loo xam ne saltala la sën la woon nga ñi maanaam ñu koy xapp ci sa kaw wala yow nga dem di tu di mbataxu ci biir sën ba di takk mm. mu se mu seppi la ba nga seet wecc kon maqaamam istiqaama noonu waaye nag nañ bàyyi xel nag ci tomb ba wa kullu maqaamin hijaab oh, am na loo xam ne dañuy wax nii rek dañ koy wax nii rek ci waaye nag sayxul kaamil dëgg moo la mën a génn ci lii ah, te lii moo rëmbee tey senegal gis goo xam ne tey mën naa wax ne bu jàng jotee mu jàng wala gis goo xam ne tey bu topp yàlla jotee mu topp yàlla waaye nag bu musique baag fecc daje daje tëgg gaag yooyu mu daje ca fecc ba ñàq mu boole ñaari xaal yi léegi nag kon loolu faw sayxul kaamil moo ci mën a ginti bi ma jëlee ci ixlaas mu yóbbale ci maqaama a tumaninna ah, yaa ayyatuha nafsul mutmainna irjii mardiya gis nga boo àggee ci maqaamam na maanaam yow lu yàlla defati geureum nga yow lo defati geureum nga waye nak dafa am charte ndax waxna la irjai ila rabbika ya ngi xuus maqaam yëpp mun la watal sa borom lolu moy mushahada muraqaba ma'rifa mon la delu sa borom legi nak ya ngi dem ci maqamam al ihsaan foofu mooy delluwaay bi moom it ummu la yàlla may na ko ñetti doom ummu la yàlla may na ko ñetti doom ñetti doom yooyu mooy muraqaba mushahada maarifa léegi nag wax na la irjii ila rabbika mu ñëw ak yow ci muraqaba mooy faduqu lii mu waafaqante ak faduqu lii oh. faduqu lii mooy yow da ngay ñëw représenté wu ci buntu borom bi ngay ngunu ngunu di yërëmtulu déggal lii rek. waaw foofu yaa ngi munu munu téye kurus gi di wër. ci yàlla gis duutu la te fekk yaa ngi ci buntu borom bi di fëgg. oh kon ah, <laughs> léegi mu raxaba fa doquli fi ibaadi hmm. ma mu yaa ngi dégg wax bi hmm. bi nga bàyyee ko maqaama mu shahada مساني لك معرفته سنة لك معرفة موي ودخلي بمجبة في جنتي مو المعرفة ودخلي في جنتي نك الولاية الكبرى والله الولاية الكبرى كون على كل حال من يب من يلف وات كرم سنبي تيس الوات آه، دمي وخرك والله العظيم شيخ الكامل له بالله الذي لا اله الا هو موي دغري سرين له خينا نك نيت بو نيكي تشرونم لو خم تي موم لو بري وكي كون الحمد لله كون الحمد لله باسكو داني واخني خم تي موم رك وان خم كو يومبوت ndax ñom ñoo doon yuñuti ci sariatu ak ci xaqiqatu te yonentu ñu ko jege woon wax nañ ne xamuñ ko ñu ko sori it xamuñ ko kon dañuy xam ci moom rek kon dañuy ñaan yàlla rek yàlla bàyyi ko fi yàlla yàggal ko fi lool yàlla defal ñu fatixu ñu nit boo xam ne dañ mën a xàmmee suñu borom bi ndax fatixu nag moom mooy nekk li nga xam ne nafaatun alxursiyu mm. تجذب قلب العبد الى حضرة القدس بوكا دافي نك فوفو نيو اوبي لييب نك آه، بوكا دافي فوفو اسرار ييب داي فين بو اسرار فين ياي واخ لو خامني كين كو دندي نيان كي فان لا جانغي فك ميري دو لو اوب دو تي تيري شيخ تجاني شريف رضي الله عنه بيم جانغي لام جانغ با بري لان لا ديف ووري غور يالله با تاي نون ني نيك تي لي دو مونو مونو ndaw dëgg kon yal yàlla fayal mag ñi yal yàlla fayal ñu sëriñ bi ñu ngi big lool ci moom ñu ngi leen di ñaanal yéen zakir yi ah. yàlla dëgëral seen baat yàlla neexal ko yàlla yëkkati seen maqaama ba tant yi gën a mag ngeen koy zikkar yaa yàlla mën na loolu yal yàlla def loolu ñu ñëpp yal yàlla ubbiñu ñu ñu xam-xam bi sàkku ci kanam sëriñ bi sëriñ bi ñu ñëpp nañ delu waxaat Cheikh Mouhamadoul Amine amin yal na yàlla yagal ko fi te may ko wér yal na yàlla yàggal ko lol te may ko wér wa ala ali haqq qadri wa miqdari al azim